watax ba man babakar xamna ne ma wara raw watax ba man babakar xamna ne ma wara raw mbollem ku lay sant ngir yow rek ya ma teral dalal di fop sa kurus tay si karo kata sa ludul li ngay jef du an ndag yow budé ganesse dalal di fab sa kuruus tey si karoo katasab dul li ngay jëf du an ndag yow bu dee ganese dee mot la tax di ragal mooy daala mat di ragal ak saa su wéy dee mat dox di mooy daala matt di ragal ak saa su wéy te aw yiw noonu koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu nu ñoo ñee jëkkoon ànd ak nu tàbbi ca ñoom ànd ak ñoom jëm fu jëm mu jëme nu fu fu fam lañ jëmee